Déthié Fall bu ànd ak xel bu dal moo ñëw daal di jàkkaarloog sabalkat yi ngir daal di waxtaanee ci wàllum candidature limu li sasoon boppam mu daal di koy motal xaati mi itam daal di mot sëkk lenn rek moo des luy ñëwaat ci xelam bésu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre di bés bi nga xamante ni nag euh, CEDEAO euh, la ñuy fësal atte gi nga xamante ni nag amal nañ ko euh, soxal Ousmane Sonko ñu daal di koy delloo ci liste électorale yi bu ñu sukkandikoo nag ci bile candidat gët yëpp ci Macky Sall la daal di tege. Il de faire cet autre jàpp naa ni li ko desee bariwul te na fexe ba dugalaat kii di Ousmane Sonko ci liste électorale yi lu yàggul dara ñëpp gis nañ fi ay membre Sénat yu bees yu mu fal te ñëpp xam nañ ni tegu ko fenn. nous savons tous que université yi ñu tëj yi loi bi nga xamante nag jëmmal nañ ko soxal wàllum parenage di jalgati lu bari ragal li nga xamante nag moom moo di beneen président de la république bu fi ñëwee daadi di koy topp. bu ñu sukkandikoo nag ci Déthié Fall Macky Sall xamul lu ko war. celui qui la clé pour cette solution là. li ñu bëgg mooy mu delloo si ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko si jongante njiiti réew yu njëm fexe tamit ba saafara li nga xamante ni mooy jafe-jafe yu ñu jànkonteel si mbëkk mi fexe ubbiwaat université yi teg si fexe ba ñu amal ay élections yu jaar yoon. les conditions soient aussi pour l'organisation d'élections libres et transparentes. njiitalu parti républicain pour le progrès am na yaakaar ni nag élection yu jàllee moom mooy nekk euh, njiitu réew mi soxal nag li nga xamante ni nag moom moo di tiitaange bu ñu bari am soxal élection ñu daal di koy dàq nangu te dégg li ni mel.